ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor les minutes de l'info. yow mi nga xamante ne yaa ngi ca biir mun ngaa ñu wax lu leer ci mbiru mystique comme yaa tudd ay mbiru njabar euh, damay jéem a ñu diwa diwa moi je nga laa gëm. gannaaw yàlla bi ma gëm ak rasulullahi muy sama diine. gëmuma leneen loo xamante ne nii ne sama destin foofu la war a wékk loolu si yàlla sunu borom subhanahu wa man loolu laa gëm. mais Sénégal nga ne. dama ni waa Sénégal laa nekk. dama ni Ousmane Sonko mi àndal plus. Ousmane Sonko mi àndal. Hmm. musuma ko gis mu takku musuma gis mu sanku musuma gis mu def nangam sangam. jullit la nag am na fu kuy taxaw di ñaan suñu borom. Hmm. yeneen sénégalais yi nga xam ne ñoo bokk ñu liggéey bi. wala ñoo bokk xeex bi. ñoom ñëpp taxaw ñaan nañu yàlla suñu xanaa xamoo mbir événement yi base yi fi jàll. mais lan nga fi gis pour la première fois à Saint-Louis waa dëkk yëpp génn ba 3 heures du matin di wàcc il faut mooy suñu Hmm. ñeneen ñi jàngu bi si lu ñu gëm ñu taxaw ñaan ainsi de suite ainsi de suite. kon nag ñu wax ne wax dama ni mais dossier yaa fi taxaw dama ni. dégg nga fi de la république Abdoulaye Thibault génn fi ne le de la ñoo gëm mystique. dégg nga fi ne déggoo ko fi. man de dégg naa ko mu wax a été blindé mystiquement képp ku ko attaqué mystiquement si sa kaw lay këpp nangam ñoom ñoo xam kon ñoom ñoo gëm mystique. dama ni dossier bi nañ ko leeral. te ñu bàyyi seen yëfu mbër yi ñuy def mel ni ku nekk si arène nationale. d'accord sànq da nga da nga ŋàññi. boo xam jàpp nga ni dañ ko tourner dans l'illégalité. Mm-hmm. bu ko jël comme opposé ko wala est-ce que lu mel noonu tamit léegi maa ngi ci comparaison yi war nañ a. ni ñu ko ñaawloo noonu war nañ ko mën a ñaawloo tamit ci Bougazelli ci parti boobu wala. mais dama koy ñaawlu man mii. Ah mais bien sûr xam nga man. maa Bougazelli bokkuñ Bougazelli lu mel ni xeme la ñu yàq suñu parti. lu mel ni xeme la yàq suñu leader. Mm. mais damay ñaawal façon bi nga xam ne moom lañ ko defee parce que li ñu doon def c'était à son insu mais nit tamit kenn du ko toroxal man loolu laa gëm nit kenn ko torox te yaakaar naa bopp ba tey déggoo suñu parti ku ñëw taxaw wax si di jéem a encouragé lu mel noonu est-ce que bu demoon bu mu gazeli commettre le comme avocat di nga moom waaw non loolu c'est un autre débat la parce que xam nga tamit bëgguma sama profession <laughs> ak politique bi di jéem a am ay waaw moo tax parce que justement mais dama ma gëm bëggëm moom non li ma gëm bëggëm moom de toute façon dossier sama parti am ci benn position hmm. man je me sens obligé de derrière la position de mon parti kooku moom c'est clair. comme conviction bi nga am ci sa parti. contre mooy mooy primé. non non non c'est pas ça ah, ah parce que mën comprendre parce que da ngeen fi bëgg a jëlee. loo xaaral loo xaaral fexe sénégalais yëpp yem ci dara. loo xaaral dafay baax. quand je dis mon parti quand je dis mon parti n'oublie pas que moi je suis le porte-parole du parti. tout ce que le parti dit m'engage. je suis obligé de défendre la position du parti sur un domaine qui est qui est censé politique qui a une forte dose de politique. parce que parti suñu parti doo ko dégg doo ko dégg muy wax ci yenn dossiers yu nga xam dafa am équipe judiciaire connotation mm. judiciaire mm. mais quand c'est politique notre parti am na ci benn voix au chapitre am na ci benn position mu si war a dégager je suis lépp lu ñu a wax pour parti bi man maa ko a wax kon su ma ko waxee pare génn sama métier am déontologie gis na dañ ko ci tooñ mu woo dafa am déontologie ah am na yoo xam considération sax mënu ma cee dugg peut-être pour des raisons professionnelles. mais dama ne sa métier boo gis dafa am déontologie. jii yow ak ki la gën a jigéen su ma ñëwoon défendre la yow wala défendre yéen ñaar ëllëg ngeen ngeen jote yéen ñaar est-ce que xam nga yéen ñaar matuma see défendre kenn parce que dama leen a boole woon défendre moo tax. seen proximité moo tax. moom dama ne métier tamit dafa am lu mu lay permettre dafa am ce ko appelle la déontologie de la profession. Hmm. loolu tamit mooy tax yenn yi. doo si mën a dugg loolu audit loolu audit d'ailleurs sax Sénégal xam nga VAR dafay nekk te Sénégal ñun ñëpp daf pay dëkk bu ndaw la hmm. da nga fiy wax dara gannaaw suba mu rattrapé mooy rattrapé est-ce que mën nañoo comprendre gëm ni yàlla tamit au-delà du métier yàlla moo gën a est-ce que mën nañoo comprendre un Ousmane Sonko ca fajar ga rek ginnaaw bi ñu tegee loxo Simon ak Y'en a marre dañ leen doon leen déglu rek Simon ak euh, kii kilifa laata sax ñu leen kii euh, ñu leen di euh, mandat de dépôt hmm. conférence de presse waa Y'en a marre ñu gis Ousmane Sonko mu ñëw teew fa alors que xamul mbir mii ñu jëm fan lay jóge muy ci saase rek muy moom muy Guy Marius Sagna mu ngi fa demoon rek ñu wane ni daal dafa am ku nekk seen ginnaaw loolu aussi euh, question de principe est-ce que nangu na ko non Pape Ousmane gis nga nit bu neexee da ngay gore bu naxaree da gore hmm. am na fi ay jamono pouvoir yu bëgg a faagaagal démocratie en passant en prenant comme prétexte le dossier de Ousmane Sonko. déglu baax li ma lay wax waaye Y'en a marre bañ defee lecture de la situation dañoo ñëw ni loolu du jàll ñëw taxaw armé wu ñëw xeex à nos côtés déglu baax li ma lay wax ñëw xeex à nos côtés bii yoon ñëw nañ ni Y'en a marre boobu ñu ngi leen di persécuter parce que avant même ñu leen di persécuter de cette façon dañ leen doon diaboliser. dem nañ ba sa biir ñu ñëw taxaw tëggal leen dossier judiciaire lan moo war a nekk taxawaay Ousmane Sonko sur les principes. ah oui non xaaral rek dama hmm. war a mën a nekk l' épreuve lan moo a mën a nekk sa l' épreuve. et dans l' épreuve. épreuve mooy taxaw dina jéem a dugal ci loo xam te ni yow ala kalaa nga ma clamé nga haut et fort ton innocence. mais dafa naan est ce que Ousmane Sonko may na ko mu gën loo rek bàyyi parce que ñaari parti Ousmane Sonko ba tey jugé wul. ah Ousmane Sonko déggoo ko mu ni diw def na wala diw defal. mais defal naa mais xaaral non xaaral non xaaral. y a des éléments révélateurs mun naa jox. parce que ci jotaay ba wax na ba tudd benn conversation bu dox ci diggante le procureur de la république ak ki nga xam te ni mooy kilifa. ça n'a ça n'a rien à voir avec le ah dossier. <laughs> waaw moom laa la ça n'a rien à ne kat ni kii. Mm-hmm. lu ñu yàggoon bëgg la ku ñu yàggoon xaar parce que ci waxam moom Ousmane Sonko dafa ne képp yéen nee na euh, Bassirou dafa ne kilifa. képp koo xam yaa ngi jàppale Ousmane Sonko. Mm-hmm. di nga ko rëcc suba. non non mais wax ñu su ko xeeboo ni déjà. mais loolu il a une idée. mais loolu mu jàpp ne xëy na loolu mooy seen taxawaay mooy li nga wax moo nekk taxawaayu régime bi. képp ku mos a jàppale Ousmane Sonko xam nga ni tëddoo di nelaw ci noflaay ji. loolu mooy dëgg. ah oui bien sûr. événement mars yi ñaata élément passif nañ jàpp dëggoo fi ñu jàpp Birame Souleye Diop jàpp ñu fi Abbas Fall jàpp fi soxna Birame Souleye Diop. fu mu mujjee mais dama leen kaso. <laughs> kaso lañ mujjee mais génn nañ. ah oui génn nañ parce que dañoo xeex ñu tamit croiser tooguñu croiser les bras jàpp suñu ñàmb xeex ak ñoom exiger ne leen personne ne pourra nous faire chanter. exiger leur libération. dama ba sa biir ñu woy nañ ànd ak dal da wuy ay kilifa jug nañ ñaan ñu ànd ak dal ñu ànd ak dal mm. waaye teewul. accepté wuñu ñu taxaw yóbbu ñu à la guillotine. mais jusqu'ici moom laa la responsable Ousmane Sonko sur les événements de mars moo tax ma gis nga gis nga gis nga wàllu chantage bi ñu wala tous les alliés de Pastef ak yooyu loolu dafa yàgg. mais dañu koy wax mais amul firnde. non dafa li wax ni amul firnde mooy acharnement bi ngeen bëgg a wax ni nguur gi daf ci nekk jëm ci yéen c'est-à-dire amul firnde bu bu boo xam ne tey bu ngeen di wax. ma exemple ma jox exemple da ngeen jox ay firnde. ma jox exemple maanaam oui. preuve dafa am benn xale bu jigéen bu tudd Fatou fay jànq faatu fay Diank elle est et archiviste. Mm. exemple yaa ma ko demandé ah. oui. documentaliste et archiviste. au niveau du conseil départemental de Ranérou. Mm. militante Pastef. jamono yële si ginnaaw. Hmm. Aliou Dembouré Sow député. mel ni xam nga xam nga ni mooy. président conseil départemental bu bu Ranérou. Hmm. daf ko licencier abusivement. abusivement waaw mais ndaw si en légaliste en citoyenne républicaine yemul ci dem di ko dénoncer dafa dem saisir les juridictions compétentes tribunal du travail de Matam oui bu Matam par une décision numéro 11 de l'année 2021 rendue le 12 juillet 2021 hmm. dafa condamner le conseil départemental à payer à en 10 ans que le licenciement est abusif ba pare condamner le conseil départemental pour ñu fekk ay droit am sous le bénéfice de l' exécution provisoire partielle. waaw ah oui déglul Aliou Dembourou Sow moo war a fay wala moo warut a fay. waaw en tant que président du conseil départemental. di mu war a war a fay waaw ci li nga wax man gisaguma ko waaw. <laughs> ay jugement am sax dem na ba saisir lof nag. waaw loolu waaw. jamono ji la dame est en train de subir des chantages de chantage. Ah mais bien sûr. c'est quoi arrêté ndax ñun bokk Pastef moo tax. kilifa gu mag du ma tudd turam. woo naka ne que boo bàyyee Pastef ñu dellu ñu fay la sa xaalis. et puis ñu xool sax fu ñu lay mën a réinsérer waat nga amaat liggéey. li ma lay wax ni bu dee du dëgg Aliou Demba Sow la dem porte plainte. Fatou fay jànq dinaa ko wax mu ñëw fii mu ñëw taxaw wax ngeen dégg. ah oui. c'est une dame très brave. qui a traversé des épreuves. du fait de son compagnonnage avec Ousmane Sonko elle est en train de subir des dérives.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 madame oui, à ah, madame Fatou Faye Diankha archiviste documentaliste, documentaliste comme sama Fatou Fatou Faye Diankha bi militante passive la elle est en train de faire un excellent travail dans son village natal dans plusieurs villages yi nga xam ne foofu la ren foofu dans son ren natal hmm. c' est que dafa ànd ak Ousmane Sonko pour wax la dama la jox exemple yow yaa ma laaj firnde bu leer firnde bu leer ne la bari nañu ànd ak Ousmane Sonko tey jii mais notre frère Matar Sène